allu baay we téléspectateurs lecteur auditeurs yu Waarwi TV le 25 décembre bii yemoo ak samedi bu ñu demee ba 17h30 dañu am mbégte ak bànneex dalal jàmbaar ju mag ji di nger Isback Nguer Isback ci ay jaar-jaaram Nguer Isback ci tolluwaayam ci liggéey Nguer Isback ci li des ci kanamam xam ngeen ne Nguer Isback dafay waajal bis bu rëy rëy di la 7 janvier atum 2022 mu koy defee ca Madiana 6 Waarwi TV am mbégte ak bànneex ngir dalal ko ngir waxtaane ay jaar-jaaram waaye waxtaane waxtaanee nan la ñuy waajalee bis boobu di le 7 janvier le 25 décembre nga di koy laytaaye nag émission bu mag ci buntu centre formation bu Ngeres Baak sopp Cheikh Moudou Fadal Mbacke ci Madiana 6 yéen ñi ko bëgg a teewee mën ngeen a xel loolu le 25 décembre ci atum 2021 ñu waajal le 7 janvier atum 2022 incha allah rabbi bu ñu demee ba 17h30 yéen nga xam ne bëggoon ngeen a ànd ak ñun en direct mën ngeen a def Waarwi TV waaye yéen ñi nga xam ne da ngeen a sori maanaam ñu dëkkee li wër Mbacke Mbacke Daaru Salaam ak gox yi ko wër mën ngeen a toog ci seen salon jàkkaarloog ñun ci centre bi nga xam ne si moo boole réseau câbleur yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Touba ak Mbacke ak Daaru Salaam incha allah bi maam Thierno Birahim Gueye ak Moustapha Nger Nger Isbak bu leen ko kenn nettali laaj ak tontu dina dox suñu diggante ak moom ci métier mi fan la ci toll jamono ji naka la liggéey bi doxee ak fan la ci jëm ci waajtaay yi fan la ñu toll ci bis bu mag bi nga xam ne kenn dootu ko laajte muy remise diplôme bi la 7 janvier te tudde ko ay kilifa yu mag ci dëkk bi mbokk yi na ngeen ko bàyyi xel oral bi la ñuy àndal en direct ànd ak yéen ci Waarwi TV en direct intégralité nag dara du leen ci rëcc incha allah rabbi maam Thierno Birahim bi Mouhamadou Moustapha Nguer ah le 25 décembre 2021 bu ko kenn tardé bu ko kenn wute man ngeen toog seen i salon man ngeen daagu daag ñëw seetaan ko c'est gratuit. واقبوا